convergence euh, des jeunes cadres euh, républicains bu APR ak kiledi lay di Boubacar Samb euh, nekk président bu mouvement alternative leeral nekk membre bu UNP bokk jëmu ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ni mooy criminalisation du viol gannaaw projet boobu mu jógee ci njiitu réew mi dem ci assemblée nationale ñu daal di koy voté jur na coow troisième mandat bi tamit jur na coow gis ngeen ni njiitu réew Sénégal joxe na ci ab tontu ci discours fin d'année bi mu doon amal ci 31 décembre 2019 affaire Sen TV bi ñu tëj euh, ay ay ay jours peut-être trois jours li nga xamante ne tamit moom mooy yokkum courant bi euh, ba ñu teg ab euh, collectif ñoo lànk ñoo bañ pour xeex ko opération de désencombrement bu Dakar Sénégal zéro déchet bi njiitu réew mi daal di lancé tey jii sax mu fas yéene ko commencé ca quartier di Mermoz Guy Marius Sagna bi nekk ci kaso bi ak yeneen ponk bu soxla actualité bi maanaam wàllum éco ak urgence yi ñu wax hôpitaux yi ñu daal di ci euh, dalal ki lay di Boubacar euh, Samb ñu ngi lay nuyu ñu ngi gis ni tey la sa anniversaire kon ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire Boubacar. maa ngi lay fay Ndeye Comba di nuyu sama. goro bi nga xam ne <laughs> c'est na ami euh, vraiment di nuyu bépp auditeur ak auditrice su rajo mi FM mhm. vraiment kontaan trop ci ñëwaat fii ci plateau bi mhm. vraiment pour partager ak nit ñi mhm. euh, li nga xamante ni mooy actualité semaine bi waaw la sa anniversaire kon waaw tey la ah, sama anniversaire dafa tombé de léegi laa ko gis kon ñu ngi lay souhaiter un très euh, joyeux anniversaire. ki la tamit euh, di euh, Omar Dieng nekk responsable politique APR nekk vice coordonnateur national bu COGECAR convergence des jeunes cadres républicains bu Alliance pour la République ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm Omar Dieng. Oui, euh, je vous salue Sabine, maa ngi nuyu tous les auditeurs de la radio di nuyu sama co-débatteur bi mon ami. waaw nee na gorom laa daal <laughs> il faisait partie de la mouvance mais xam naa dafa xaw a am euh, quelques mm. euh, quelques points de vue divergents rek. di mm. nuyu tous les auditeurs de la radio tous le Sénégal toute ma famille politique l'APR et tous les responsables politiques. voilà euh, tey jii Omar Dieng ngeen tëral ab kuréel kuréel bi bees la tax bees la plutôt COGECAR euh, di convergence euh, convergence des jeunes cadres républicains euh, mbir moom lan moo ko tax a jóg exactement Euh, oui, euh, je vous remercie Sabine. Euh, en fait, c'est une nouvelle structure. Mhm. Parce que, comme vous le savez, l'APR, c'est un parti politique. On est un parti au pouvoir et on est organisé en différentes structures. Mhm. Comme par exemple, on a pris l'ensemble des jeunes qu'on appelle la COGER, la convergence des, je, des jeunesses républicaines, mm. qu'on la COGER. Mm-hmm. Il y a l'ensemble des cadres. ah wolof voilà ah, waaw euh, comme ni ñu koy waxee suñu jëlee. wala déggoo dégg naa wolof sax mais <laughs> xam nga wolof bi léeg-léeg moo set rek. Mm. donc euh, dinaa def wolof français daal. voilà waaw soo jëlee mm-hmm. euh, ñi ñi tënk jigéen yëpp ñi nekk APR. Mm-hmm. moom la ñu boole def ko mouvement des femmes. soo jëlee cadre yi ñu nekk APR yëpp moom la ñu boole boole def ko le la CCR mooy la convergence des cadres républicains mhm. y a aussi les sages mhm. maanaam mag ñi daal y a aussi les arabisans y a les étudiants le mouvement des étudiants et élèves mhm. ñu nag dafa amoon benn gap c'est-à-dire un trou dans le parti parce que dafa amoon ñoo xam ne ils ont dépassé la limite d'âge de la jeunesse politique mooy trente cinq ans ñi nga xam ni gis gisuñu seen bopp ci cadre yi daal on s'est concerté mmh. avec des responsables. On a soumis ça au chef de parti, le président de la République, mmh. qui l'a validé. Vous par validez. le, par mhm. le biais du, du, directeur des structures, de ministre d'État, Mbaye Ndiaye. Mhm. Donc, c'est une convergence, c'est une nouvelle organisation mhm. dans la paire qui est dénommée la convergence des jeunes cadres républicains. waaw on vise à c'est une. gën a mën a jàppale président wala ci troisième mandat bi non du ci trois euh, côté boobu sax après xam naa dinañ ci ñëw mais ouais. c'est juste on va défendre notre président mhm. on va communiquer sur l'action gouvernementale lépp lu gouvernement bi di def mhm. dinañ ko def parce que tamit xam nga mun nga def lu baax mun nga bañ a def lu gën a baax mhm. mais lépp lu ñu war a expliquer pour askan bi war ko gën a mun a xam rek ñun ci loolu lañuy taxaw défendre suñu président lépp bu mu def loo xam ni peut-être am na ñoo xam ni gisewuñ ko neen wala ñàkk ko xam. Mhm. ñun côté boobu dinañ ko défendre communication boobu. mettre en valeur daal liggéey bi président di. liggéey exactement le sur, sur le plan Sénégal émergent. voilà euh, tey jii yow Boubacar Sam tamit nga am sa mouvement euh, mu nekk euh, mouvement alternative leeral bokk UNP bokk jëm gis nañu tamit yaa ngi naan da nga bëgg di laaj gox wala kii bu Pikine exactement. su kuréel mouvement yi bëri na Boubacar ak parti politique yi yow luy sa particularité mouvement alors doon nga euh, fi ànd ak tamit ay ay satatal Sall gis nañ tamit doon nga ànd ak Souleymane Ndéné Ndiaye waaw dañ naa ma est-ce xam na fu muy taxaw. Boubacar ku xam fu muy taxaw la. Mhm. parce que euh, baax na tamit ñu leeral tuuti. Mhm. Mhm. Euh, sama ànd ak Aïssata Tall Sall. Aïssata Tall Sall lu tax ñu ànd on était dans une coalition. elle avait un mouvement qui se dénommait Oser l'avenir. ñun on avait notre mouvement qui s'appelle le mouvement alternative leeral. donc plus Euh, yeneen mouvement politique yoo xamante ni dañoo daje donc coalition la ñu la ñu la ñu bokkoon mhm. parce que gis nañ ni boobu am nañ divergence suñu biir parti d'accord ñu ci euh, nu ñuy doxalee ñu créer suñu mouvement daal di dem élection législative mhm. donc sama ànd ak ay sata wala suñu ànd ak Aysata si loolu noonu lañ ko uniquement si c'est ça si si cadre boobu la mooy ni voilà euh, coalition la ñu la ñu formé ñu ànd si liggéey si et j'étais j'étais j'étais le porte-parole de la coalition waaw léegi yow ak Souleymane Ndéné nag luy seen luy seen relation Souleymane Ndéné tey nga ànd ak Souleymane Ndéné suba nga bàyyi Souleymane Ndéné non euh, boobu dañoo amoon différent parce que déjà dafa demoon soutenir ji le candidat son ami euh, Macky Sall. Macky Sall sans pour autant mu consulter. parti UNP amul kenn ku ma fa ëpp expérience politique amul kenn ku ma fa ëpp une base politique. Mhm. amul. Mhm. je défie quiconque. donc euh, li nga xamante ni euh, xew na muy ni euh, Souleymane dem rejoindre Kële. sans pour autant mu consulter alors que sama base mm-hmm. y des gens yoo xamante ni mag mat nañ ma maam mm-hmm. ay nit ñoo xamante ni mat nañ ma yaay ay nit ñoo xamante ni mag nañ ma euh, baay mm-hmm. sama proximité ak Souleymane quand même bu bu ñëwee rek def lool noonu sans pour autant que man mu consulter ñi nga xamante ni ñoom laa àndal parce que ànd tamit àndu nawle la Souleymane mosul def dara sans pour autant mu consulter loolu bi mu ko defee g euh, essayé quand de la contacter pour essayer xool voilà qu'est-ce qui se passe lan la. Mhm. mais euh, jotuma ko. Mhm. ba noonu ma jël sama décision parce que tamit nag. Euh, léegi da ngay demal sa bopp yow rek. parce que mm. gis nañ la ngay laaj mairie bu Pikine commencé nga sa sa campagne déjà. mairie mairie mairie bu Pikine dama koy laaj. parce que doomu Pikine laa. Mm. falaa laa juddoo fa laa yaroo fa màggee ba doon ni ma li ma doy. Mm-hmm. doon nii. tamit jëriñ fa dara. Mhm. parce que dëkk neex na trop mais boo fa tekkee dara ci lay gën. Mhm. donc nawloo nañ ma xam nañ ni tey jii nii Pikine mën naa ko jëlee fii yóbbu ko fële parce que ñañu fal. Mhm. ci communes yi nga xamante ni ñoo nekk foofu. duñu ay doomu Pikine te tamit jëriñuñu Pikine dara. Mm-hmm. amul kenn si ñoom koo xamante ni bu dee ci commune la wala ci ville bi koo xamante ni jëriñ na Pikine dara amul. yow nga gis ni euh, vraiment war nga mën a jël. Euh, na naturellement dafa dafa dafa jot ñu jël li ñu moom. Mm-hmm. mbir mi ñoo ko moom. ñun euh, Pikine ñi président Macky Sall imposé foofu nit ñi ay doxandéem lañ. Mhm. c'est pas des enfants de Pikine duñu ay doomu Pikine. Mhm. ñun doomu Pikine yi nag ñun ñoo am suñu fulla ak suñu fayda jug ne dañuy jël mbir mi parce que boo xoolee. boo xoolee sax depuis bi ma annoncé sama candidature si ngay gis yenn yenn grand yi nga xamante ni c'est des c'est des c'est des responsables dans ce pays. Mhm. nekk nekk ay kilifa ñoom ñëpp commencé. ne dañuy activer wu pour ñu mën a nanguwaat li nga xamante ni moom la ñu moom. Mhm. donc ñun loolu moo tax ñu daal ne jot nañu jël li ñu moom. waaw mi ngi noonu Omar ñu mhm. laaj la ci benn euh, li nga xamante ni actualité la. Mhm. Euh, di criminalisation du viol euh, projet bi féministe yi ak ñuy xeex viol gis nañ ni viol bari na ci réew mi même bu fekkente ni sax peine yi dur na terewul phénomène bi mu ngi continuer di am ba njiitu réew mi jël projet bi jébbal ko assemblée nationale ñu ko biñ ko voté nag am na ñoo xam ne euh, jur na en tout cas polémique naka nga gisee euh, euh, criminalisation wu viol ak pédophilie. bon en fait euh, sur ce cas-là criminalisation criminalisation viol. Mm-hmm. je pense que c'est une obligation de la société. Mm parce que quand tu vois un phénomène récurrent yàgg nañ fi di gis dans les médias. des cas yoo xam ni que ce soit dans la presse ou autre ñu naan telle personne violée nañ ko dans les régions wala telle autre donc c'était une nécessité encore une fois le chef de l'État mm-hmm. ou les parlementaires mm-hmm. dañuy jël loo nga xam ni une un projet de loi loo xam ni askan bi moo koy laaj xew na ci Sénégal te jaaduwul maanaam ñëpp xam nañ ni viol c'est quelque chose woo xam ni c'est pas bien mm-hmm. que ce soit pédophilie ou autre donc euh, kon li président def mais bien sûr parce que c'est c'est quelque chose boo xam ni waroon nañ sax alourdir peine bi. Ah, mu gën a kii mu gën a tar. Oh, mais am na góor ñu commencé di kaas. non déedéet ci ci criminalisation bi xam nga sooy kaas da ngay kaas lépp loo xam ni peut-être. Mhm. Euh, baaxul. Mhm. mais loo xam ni baax na ci askan bi dina tax nit koo xam ni peut-être. su amoon yenn impulsion yoo xam ne dina bëgg a violer sax wala violer la loi mhm. euh, je wala def benn un acte ki n'est pas indécent wala sans consentement soo xalaatee peine bi ngay encourir rek mun na la décourager mhm. donc côté côté boobu c'est quelque chose koo xam ni je vais le saluer parce que tout projet de loi encore une fois Sénégal foog ñoo xam ni ñu defar defar taxawaayu nit yi nga xam ni mhm. découragé yi nga xam ni di font enfreindre la loi wala def loo xam ni jaaduwul foog ñu décourager ko donc je et maa ngi ñaan askan bi loi bi voté nañ ko c'est c'est maintenant c'est voilà voté nañ ko mais c'est mm. quelque chose de bien donc mm. nit yi bu ñu tiit mm-hmm. euh, képp koo xam ni peut-être amoon na yenn impulsion parce que loolu dama koy jàppee nit ku normalul sax mooy mm-hmm. def yenn yi mm-hmm. que ce soit viol wala pédophilie nit soo leen di sekk yenn affaire yi foog ngeen am consentement donc c'est un c'est obligation société bi moo ko doon laaj donc président dafa jël encore une fois ce que demande la société mu voté ko comme ça pour avoir une société plus adéquate ci nit yi nu muy doxee daal. am na am na ñu naan euh, euh, société bi léegi dañoo gis ni dañoo jox maanaam li ñuy jox jigéen ñi dafa ëpp góor ñi maanaam li dañu commencé sax di leen xañ seen àq ak seen yeneen. est yow am nga. Euh, perception ci loolu ay parité xam nga défendre jigéen ñi journée de la femme ainsi de suite maanaam daal léegi dañu jóg am na ñu ne dañu jóg carrément pour jàppale jigéen ñi ñu jóg ci kaw. góor ñi topp ca gannaaw. am ah. nga yow perception boobu. man personnellement. Mmh. je suis du même avis. Mmh. que mon chef de parti le président de la république. parce que moom bi mu ñëwee ba léegi dafay xeex parité. Hmm. si tu le vois même dans les élections ou dans le gouvernement. Hmm. tu vois le nombre la représentativité des femmes. Hmm. dans la société dans ces nominations chaque fois les femmes sont présentes donc euh, lépp lu góor di def la plupart des choses jigéen war na ko mën a def. bien que parfois nag y a une certaine différence. Mm-hmm. parce que euh, du point de vue morphologique. xam nga jigéen léeg-léeg moom mooy jur doom. Mhm. moom mooy nàmpal affaire yooyu mais y des avantages et tous tout tous les besoins yi nga xam ni. Mhm. les femmes ont ont ont ces besoins là en cours le président de la République prend cela en charge. Mhm. donc man je suis sur le débat de la parité. wala li góor yi di am wala jigéen yi duñ ko am je suis du côté de chef du de chef de l'État. et je suis neutre là xam naa ni jigéen ñi daal am na fi ay jàmbaar fii ci dëkk bi. te gëm naa ni certains postes de responsabilité. jigéen war na ko mën a occuper aussi bien góor ñu jigéen mm. et je salue encore les efforts qui sont faits dans ce sens voilà euh, Boubacar Samb ñu laaj la ci sa xalaat ci criminalisation du viol euh, loi bi jàll na peut-être euh, li des mooy peut-être application de suite ban perception wan analyse ngay def ci criminalisation du viol et du pédophilie naturellement Omar <laughs> le président Macky Sall def da nga d'accord gis nga <laughs> ndey foog mu d'accord ci foog mu mu d'accord ci Euh, mbirum viole mhm. dafa am si ñaari aspect yu ñu ko mën a nattee. Mhm. benn bi c'est c'est c'est c'est c'est du côté sociologique. Mhm. beneen bi si côté juridique. parce que tey bu fekkante ni dañ ko jëlee sociologiquement parlant. Hmm? tey képp koo xamante ni viol nañ la. nit ki ñu xam ko nga xam ko ñàkk koo xam dana la metti parce que c'est un acte barbare. excusez-moi du terme mm-hmm. mais tey jii nii li nga xamante ni euh, tey moom la ñu war a euh, saytu mooy ni c'est pas que le président de la République dafa dafa jël une décision pour pour voilà euh, ñu euh, booster projet de loi bi mu jàll et tout ça mais c'est un cadeau empoisonné mm. du moment que il ya toujours des gens yoo xamante ni on les accuse si ay viole si ay acte de viole alors que musuñu violer nit mm. c'est parce que lan enquêtes yi ñoo jaarul yoon moi je suis pour euh, la criminalisation du viol loolu kenn weddiwu ko mais boobaa na fekk ñu mettre en disposition lépp loo xamante ni dina permettre à la personne ñu xam ndax moo def walla deful j'ai fait de la prison xam naa j'ai beaucoup j'ai rencontré beaucoup de gens yoo xamante ni mm-hmm. tey jii nii bu ñu la waxee seen situation bu ñu la waxee tey jii nii ñaata temps lañ fa def alors que c'est des innocents mm. yow sa bopp dangay ngay taf sa gémmiñ fàtte sa bopp mm-hmm. mais tey euh, mbirum politique yéen lépp lu ngeen def rek politique ngeen ci jiital et c'est ce qui est malheureux parce que lii nii du lu ñuy politiquer parce que euh, bu ñu fàttalikoo euh, je pense bien mooy doomu Malal Camara bi te mu dëkk mm. Tamba mm-hmm. biñ ko violé mm-hmm. mais act boobu ñëpp a ko ñaawlu ñëpp si la mbir mi commencé nit ñi di wax di wax di wax di wax mm. mais bërki démb lan moo xew assemblée nationale tey amul benn député de la mouvance présidentielle bu jug wax sur des questions techniques si mbirum projet de loi bi lépp luñ fa wax mooy président lii yéex nga koo def lu xaaruñu député yi foofu. xam nga fan lañ leen ñu xaar ñu ne ñu viole ok bëgg nañ ko criminaliser mais boobaa na police def lii gendarmerie na def lii euh, ñi nga xamante ni ñooy juger nañ def lii ak lii boobaa au moins dinañ mën a d'accord. sur ce sur euh, sur cette question mais tant que ñu ngi si mbirum parparloo ak mbirum politique politicienne je suis désolé du ñu mës a avancer dans ce pays là. parce que lii nii. Mhm. Euh, du du question boo xamante ni lu ñu war a politiquer la c'est c'est une question très très très sérieuse et il faut la prendre vraiment euh, au sérieux. Voilà, mmh. affaire Sen TV euh, jour au 31 décembre un recul démocrate euh, moom la ñu bari wax parce que gis nañu coupé signalam euh, prétexte que dañu tere publicité xeesal ñoom ñu continuer di ko def mu jur coow lu bari parce que nit ñu jàpp nañ ni li gêné woon wala li gé li li Sen TV Sen TV gêne parce que invité woon nañ principal opposant actuellement bi nekk ci réew mi di kile di Ousmane Sonko. moo tax ñu coupé seen signal Omar Dieng naka nga gisee lu ni mel yow tamit li ñu liggéey ci démocratie ba yegg si fii est que war ngeen di bundu xataal presse bi tamit di leen bundu xataal ah. Euh, non mais Sabine. Euh, waaw naa ñëwaat ci mais je pense que je vais rentrer dans ce thème. waaw voilà mais tontu am na ni sinon waaw parce que le temps nous seen imparti mm-hmm, mm-hmm. et tout. donc euh, affaire u D-Média Sen TV. Mm-hmm. faut pas que victimiser tout le temps. euh, la justice sénégalaise wala mhm. la loi mhm. parce que avant tout on est un pays de droit un pays de loi mhm. xam nga je vais donner un exemple suñu la nee par exemple yow ku jaay drogue tu vas aller en prison yow nga nga nga xam loolu ba pare nga jël drogue di ko commercialiser mais suñu la jàppee tu dois encourir ta peine mais c'est tout simple que ça on a interdit des produits de la vente des produits de dépigmentation de commercialiser de faire de la publicité. non mooy est-ce que yéen di ngeen kii est-ce que c'est. non c'est logique quoi maanaam nguur gi di bàyyi produits cosmétiques yi di dugg ci réew mi. muy bàyyi commerçant yi di ko jaay mais ngeen di tere ñu koy publicité. non d'accord euh, génne CNRA génne woon euh, avertir les médias et tout. l'audiovisuel mhm. le monde audiovisuel pour ñuy tere. mais gis nañu bi ñu ko tere on a vu que pratiquement télé yëpp dañu continuer di teg seen publicité xeesal comme kii mais ñu jékki-jékki rek donc euh, Sen TV rek groupe des médias moo war a subir les conséquences alors que am na yeneen tele yu continuer woon di diffuser ay produits ah, euh, ah. est-ce que yéen tamit du ngeen jox dëgg ñu naan da ngeen contre la Sen TV non on a tout hmm. contre la wala Sonko c'est Sonko qui dérange non n'a rien à il faut éviter ce ce thème ça n'a rien à mais léegi kon ban explication ngay joxe ñu couper le signal bu Sen TV bàyyi yeneen signalé alors que ñoom lañ avertir ndoo te ñu ngi continuer woon non on est on est sur une lancée. Oui. parce que quand il y a quelque chose. Ouais. qui est enfreint. Mm-hmm. on on interpelle la personne. là il y a le président du CNRA. dafa envoyer lettre à des médias avertir leen. ensuite ñu sanctionner leen et les autres vont s'en suivre mais il faut pas que ñu jël problème bi yóbbu ko fenn foo xam ni nekkul foofu. il y a aucun lien entre. Euh, Sonko, Sonko et, et signal bi non y a na y a aucun lien mm. Sonko c'est un parlementaire que je respecte on a échangé là-dessus même mm. man je l'ai rencontré personnellement hmm. mais le problème en est que faut qu'on respecte la loi et faut pas que ñu jël chaque fois qu'il y ait quelque chose qu'on se victimise qu'on qu'on se dise que non c'est juste le pouvoir qui fait des des choses en place wala yu demee il y a le, président du CRA Babacar Diagne qui est l'ancien directeur de la RTS il a envoyé une lettre à des médias mmh. pour les pour les avertir mmh. ils ont continué à faire des publicités mhm. et là il y a eu une sanction pour quelques jours et les autres qui ont fait mu tombé juste ci 31 décembre. coïncidence bi euh, président dem jënd ay temps d'antenne toog. accaparer les télévisions et tout. non ça n'a rien à voir. dafa télé yi. non accaparer wul benn télé. vous savez que chaque année. Mm -hmm. dans toutes les démocraties dans les tous les pays je veux dire. Mhm. y a le chef de l'État qui s'exprime à la fin d'une année qui s'exprime aux populations. discours am def na ko comme euh, le discours traditionnel. il l'a fait il l'a fait mais il a pas accaparé il a appelé toutes les télés. Hmm. et par respect. Ah, mais des médias ñoom nee na dañu dem ñëw foofu pour jënd euh, temps d'antenne ñu bañ peut-être moo waral xeex. non en fait ouais. au Sénégal il y a beaucoup de télévisions. Mm. on peut pas appeler les tout, toutes les télévisions. Hmm. c'est celui qui fait une conférence quand tu fais une conférence tu appelles les médias dont tu as besoin yi nga xam ni tu penses. sélectionner quoi tu... ces journalistes. non c'est pas sélection c'est c'est juste un tu peux pas au hmm. Sénégal si tu prends le nombre de radios et le nombre de télévisions mm -hmm. tu peux pas tous les inviter au palais loolu mm il faut savoir qu'il y a eu un choix qui s'est fait il y a la Sen TV qui n'en faisait pas partie donc il y a pas question de Sonko dafa dem fële wala l'autre non mais na yéen ñëw ngeen pour jënd foofu temps d'antenne ñoom ñu bañ non Sen TV en fait c'est une télé privée. Ouais. comme oh. Macky ni mu jàllee ci RTS euh, def discours am def conférence de presse ak abaare télé yi <laughs> dama ne la euh, maanaam ba fa bëggoon moom mu jàll fépp ci télé yi. non non non c'est pas c'est pas ça c'est pas ça. alors que ñu ngi nekk ci réew démocratie. c'est c'est un faux débat. le président Macky Sall c'est un démocrate. il voulait apparaître à la télé, il est apparu ah, à la télé. Mais le contraire. quand non, il fait pas le contraire parce qu'il faut pas oublier aussi que le hmm. président de de des médias de Sen TV Bougane Gueye, mm. lui il était candidat aux élections présidentielles. Oui. Hein, il, il voulait suffrer, il voulait briguer les, le suffrage des Sénégalais. Hmm. Donc il a pas n'est pas passé par les parrainages. Donc peut-être loolu tamit seen côté bon je sais pas, je suppose. Hmm. Peut-être am na metti. moo on n'est pas passé mais waaw le président il va pas faire une chose boo xam ni. Hmm. pour supprimer une télé wala quelqu'un yow da jàpp ni Sen TV ñoom dañuy xeex wala dañuy def seen liggéey rek. no en tant que média Sen TV li def ñoom ñoo ko xam. mais man mi nekk Sénégal li ma Babacar di wax ni man mi nekk Sénégal xam naa ni le président Macky Sall c'est un homme courtois un homme bien qui va hmm. pas. Euh, Sen TV mais il crée des emplois. mais pour pourquoi on a tendance on va vouloir euh, ñuy xeex seen TV wala leen def. Ah, du mal parce que peut-être dañuy gêner. non ils gênent peut-être ñu ngi peut-être invité seen. principal opposant parce que yéen instant yi Sonko rek moo leen tiital. non il faut il faut pas dire ça. instant bii dafa mel ni Sonko rek moo fi nekk moo leen tiital. gisatuñ keneen on voit gisatuñ beneen opposant waaw léegi yéen lëngoo ngeen ak waa PDS voilà. Euh, gisatuñ Idi il a disparu. Sonko moo fi nekk daal. non ça n'a rien à voir Sonko tiitaluñu. ñun on man je veux même pas me prononcer là-dessus parce que c'est juste un parlementaire. yéen Sonko tiitalu leen ça c'est sûr. mais bien sûr mais Sonko man personnellement ça je vais l'appeler à un débat parce que avant qu'il s'attaque à notre président. Mm-hmm. il y a des jeunes intellectuels. il y a des jeunes cadres dans le parti. Mm. qui sont aussi compétents plus pertinents que lui yéen di indi Sonko yéen ci débat yéen. yéen républicain yéen yéen ñi ah. ànd ak président Macky Sall. mais sax seen président ñeme na jàkkaarloo. mais xam nga cas euh, des médias bi c'est ah. pas Sonko man bëgg bëgg non mais man est-ce que sax seen président euh, ñeme ak Sonko. non mais il est pas de la ba yéen koy sóoru. si débat a il est pertinent en fait et il a des arguments. bon man Sonko je le connais pas moi je connais mon président. yow pare nga pour jàkkaarloo ak Sonko. mais bien sûr. Et je vais l'appeler même parce que le responsable de ces femmes, il est mm. dans ma commune. Mm-hmm. personnellement, s'il est apte, man je l'appelle à un débat télévisé ñu toog waxtaan. Mm-hmm. son livre ces solutions là il va le conjuguer avec le plan Sénégal émergent ñu jëm kanam ah. parce que Sonko c'est un batterie faible il a pour cent des Sénégalais hmm. ñun on a eu pour cent des Sénégalais 58 ah, pour cent euh, euh, entre guillemets mais mais loolu moo xew parce que ay <laughs> euh, Boubacar Samb ñu dem ci affaire u Sen TV gis nga li am ci 31 décembre bi coow li bari woon Pape Alé invité nañ ko palais présidentiel pour mu bokk ci journaliste yi poser question demul Euh, dem nañ Sen TV jënd nañ fa temps d'antenne waa Sen TV bañ nañ 31 euh, décembre le président a fait son discours traditionnel comme chaque année mu pare euh, rassembler quelques journalistes fële ca pale ci moment boobu nag ñële ñoom daal di jël ab sonko gis nañ nag bi mu minuy jotee coupé nañ seen signal prétexte que dañ doon passé ay publicité xeesal yoo xam ne Sénéra avertiroon na leen nit ñi nag dañu jàpp ni mbir mi sonko la c'est un recul démocratique yow ban jàngat am ci mbir mi am ci 31 décembre ndekuma nga may ma rek ma wax Oman mii. Mm-hmm. gis nga ñoom. Mm-hmm. seen manque de courtoisie weesuwul. Mm-hmm. un sénégalais un digne fils du Sénégal dem élection am quinze pour cent nga ne c'est un c'est un batterie faible. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga gis nga euh, loolu yow yaa koy wax mais du le président Macky Sall moo koy wax. bu dee am na jamono ji nii ku koy teree nelaw c'est le président Ousmane Sonko. je aw ma na un lien direct pour ànd ak Sonko yow. man man bokkuma ak Sonko gis-gis. Hmm. man bokkuma ak Sonko gis-gis. moo tax bokkuñu vision j'aime pas sa façon de faire de la politique. sa je toujours di euh, et, et, le maintiens toujours. mais bu fekkente ni jamono ji am na ku koy teree nelaw c'est lui ma ma ma ma ñëw tuuti ci li nga xamante ni mooy euh, li xew des hmm. médias. Hmm. dañu ne tombe waral ay gaaf lan moo tax tey jii nii trente 31 décembre kenn nettaliwu ma maa gisal sama bopp publicité cos di jaar sur la TFM mhm. alors que à cette heure là assigné nañ à la euh, au groupe des médias que ni dañuy euh, tëj tele bi à partir de minuit parce que lan dañuy euh, jàllale publicité xeesa mm gis nga dëkk bi il faut que ñu nawlonte Babacar Diagne musuta jiite entreprise bu mu créer boppam c'est pas c'est pas c'est pas un entrepreneur Babacar Diagne lépp lu c'était un professeur d'anglais c'était un bon directeur c'était un c'était un professeur d'anglais musut euh, euh, jël ko walla fexe fexe fexe ba saawaay nekk fi directeuru euh, RTS mhm. mais dama lay wax Omar je sais pas ndax entrepreneur nga ou mais bu dee doomu aadama mhm. dafa jug lijjanti ba am benn un million am daal dama koy def damay créer sama entreprise def ko sama capital commencer euh, employer deux à trois personnes. Mm-hmm. dema dema dema dem ba di employer des centaines de personnes kooku état wu Sénégal daf ko war a jàppale ci li muy yëngatu tey ñi nga xamante ni tey jii nii mbir mi du senti TV rek la jàpp la laal. dafa laal les entreprises euh, de production ñi nga xamante ni dañuy ñoom ñooy def publicité yi indi ko ci télé bi. Hmm. tey jii nii am na euh, entreprise yu bëri yoo xamante ni mais c'est grace à ces ces ces, ces publicités la ñuy fayee seen personnel. Hmm. tey jii nii boo ñëwee daan ne loolu kenn dootu ko jàllale ci télé bi mais rey nga ñaata doomu aadama alors que yow yaa ngi woote émergence gis nga gis nga gis nga gis nga Omar euh, dëkk bii nii. ñun sénégalais yi ñun ñoo ko war a defar ñun sénégalais yi ñoo war a xoolante suñu biir bàyyi yenn par parparloo yi parce que tey jii nii jëriñul dara tey publicité xeesal mais publicité xeesal jàll ci télé est-ce que dafa tax tey jii nii ndey kumba dem xeesali ji déedéet question de choix la fii ñaata jigéen ñoo fii gis euh, di dem tey ci euh, euh, parfumerie yi di dem ci cosmétique yi di fa romb diw xeesal yi te musuñu ko laal mais question de choix la il faut que Babacar Diagne xam ni tey jii nii euh, sénégalais yi sénégalais yi ci boppam ay nawlem lañ en plus tey yow yaa ngi ne euh, da ngay da ngay tere da ngay tere euh, mbirum xeesal lan moo tax nga ciblé rek jour bi nga xamante ni mooy jour 31 décembre pour nga tëj euh, tele boobu noonu lan moo tax alors que si jour 31 décembre boobu noonu yeneen télé yi ñu ngi jàllale seeni publicité lan moo tax nga acharné wu ci groupe boobu parce que tamit mooy comme li ma la wax sànq rek ne la tombee waral ay gaaf je sais pas da ngeen ko natt ba mu ba mu mat ngeen taaye ko sur mesure comme d'habitude <laughs> ndaxte waaw ndaxte euh, jën jaay ma sama euh, jaay ma temps d'antenne heure bii ba heure bii mu ne la jaayu ma mais am na droit ne la jaayu ma la c'est pas parce que tu chef de l'État boo bëggee dara rek danga nga koy am déedéet entreprise privée la wax nga ko. ça ça c'est pas passé non entreprise non mais. Ah, waa Sen TV loolu lañu wax dañ ne. dañu ne na dañuy jënd temps d'antenne bi pour euh, boo xoolee sax si euh, journaliste yi ñu invité woon Pape mm. Alé bokkoon na ci. Mm-hmm. Pape Alé Niang il s'est expliqué mu daan ne demul parce que ñii bu ñu leen invité ñoom du ñu ñëw. Mm-hmm. donc moom euh, programme na euh, idris Idrissa Seck la njëkk mooy sama Idrissa Seck sama papa la man. Mm-hmm. sama papa la. sama xarit la moo ma yar mais silence am bii c'est franchement dafa tey xel. xalifa mm. moom waxuma ay waxam. xalifa waxuma ay waxam mais Idrissa Seck laa wax silence am bii nii dafa tey xel en plus yow munoo nekk leader de parti nga nekk euh, tey jii nii sénégalais yi bëgg laa déglu. nga taxaw nga daan ne non non démb dégg naa ko ni mu ngi jaaroon na Thiès. Mm-hmm. mais donc mu ngi vaquer à ses à ses occupations mais gis nga dëkk bii nii président Macky Sall du moom moo koy defar ndey kumba bu dee bëgg nañu waxante dëgg ñu ñëw ci euh, eh, courant bi ñoo lànk ñoo ñoo ñoo bañ bi mhm. euh, gis nga ni actuellement sax euh, peut-être Guy Marius moo njëkk am fit génn dem ca les grilles du palais ba actuellement mi ngi ci kaso bi gis nañ ni après bi ñu arrêté Guy Marius Sagna collectif bi terew mu ngi continuer xeexam ba am na benn fort mobilisation buñ defoon ci décembre je pense bien su dee juumuma naka nga gisee euh, collectif bi taxaw di xeex courant bi ak courant bi nga xamante ni tey jii yokk nañ ko teg ko ci ndoddu sénégalais. lii daf may fàttali en 2012 on était parti devant les grilles du palais man Thierno Bocoum Badara Gadiaga avec beaucoup de jeunes pour lan xeex démocratie loolu noonu ça nous a coûté lim ñu coûté mooy lan emprisonnement donc. tey jii nii ñu ngi ci woon 2012 tey ñu ngi ci 2020 yaakaar naa ne lii dañ ko waroon dépasser Guy Marius Sagna sa xeex lay xeex xeexu policier bi nga xamante ni mu ngi ko doon torturer à partir de bi mu ko jàppee ci oto bi ci commissariat bi ba ba muy dugg euh, prison xeexu policier boobu noonu lay xeex xeexu régisseur boobu noonu lay xeex muy prof euh, euh, docteur Babacar Diop ak keneen ak keneen ak keneen président Macky Sall bu mu fàttani nguur dafay euh, jeex 2024 munul fexe muusa ko mucc ba nekk fi président de la république donc dina génn à moins que mu dem tëdd ji France mais tant que il sera au Sénégal dina fay facture courant dina fay facture ndox gis nga les sénégalais dañoo sonn te gis nga Sénégal gii nii ku leen juróon yërëm leen parce que lan salaire yi baaxul la vie et chère conditions yi dafa metti et tout ça tey jii nii nga daal di ñëw comme ça bëgg a bëgg a bëgg bëgg a wu ci ay doomu Sénégal sénégalais yi ci boppam ñoo war a xeex xeexu Guy Marius Sagna ñoo war a xeex xeexu ñeneen ñi nga xamante ni moo Guy ñoo Guy Marius Sagna ñoo àndoon di xeex mbir mi parce que mbir mi mbiru Sénégal la. Mhm. voilà du parti politique Omar Omar mm. yéen tamit seen leader bi ah xanaa yërëmul sénégalais yi euh, yaakaar naa ni coup dur sénégalais moom mooy rek dafa mel dañu leen fekk ñu toog rek ñu jël benn yar rek assomé leen maanaam yokk courant bi dañu assomé les les sénégalais instant sénégalais dañu xam. ximmeekooguñu non par rapport ak président Sall ni euh, maanaam dañu jàppoon ni daal mooy c'était le meilleur profil en 2019 en 2012 plutôt euh, ci xamoon na jafe-jafe sénégalais yi jege na leen xam na moom sa da koy wax dem naa ci gox-goxaat yi dem naa fu ne xam naa pauvreté extrême bi am ci réew mi maanaam dafa xam li nga xamante ni sénégalais mi ngi koy dund maanaam um umpul le président Sall. Mm-hmm. Euh, peut-être ñeneen ñi sax mën nañ ne ah ñi juddo wuñ fi màggee wala jàngee wuñ fi wala xamuñ réew mi ainsi de suite lui c'est le contraire comment se fait-il après juste son deuxième mandat euh, mu ñëw assommer les sénégalais avec euh, l'augmentation du prix de l'électricité ba tax collectif ñoo lànk ñoo bañ am Guy Marius ñaa nekk ci kaso bi alors que dafa def juste un, un geste patriotique encore une fois, bon, je vais, je répondre à mon euh, concitoyen Samba. <laughs> Donc, euh, juste pour lui dire que mhm. on sait pas encore la valeur, on ne connaît pas encore toute la valeur mhm. du président Macky Parce que président Macky Sall, encore avant may dugg ci thème bi balaa muy nekk président mais il a fait le tour des quarante cinq départements de tout le Sénégal waxuma la Dakar kese mais de tout le Sénégal dugg na tout fépp foo xam ni Sénégalais mi ngi fa rek. dugg na fa xool naqar bi li fay dox ak li fa doxul pour xam ko donc il est très apte. Mm, moo tax mu wax la ko waaw loolu moo tax mu bëgg ci réew il est très apte pour mm-hmm. xam li xew ci dëkk bi. Mm-hmm. mais su doxalee nee na rek foog ñu xam lu tax mu xam. parce mm-hmm. que foog tamit ñu ñu expliquer Sénégalais yi. lan moo wax ñu bàyyi leen di leen tuur lëndëm comme ni ñu koy waxee ci wolof. di leen expliquer exactement comment ça se balaa may wax ci Guy Marius Sagna damay njëkk a ñëw ci prix électricité bi. encore une fois prix électricité bi. c'est quelque chose boo xam ni ça a mais il faut bien se rappeler que il y a deux ans de cela ou deux ans et demi en mais ça avait baissé mm-hmm. baisse boobu mais c'est qui qui l'avait fait c'est le président qui l'avait demandé mm-hmm. au directeur de la Sénélec te bi mu koy def avant mu koy jàllale sax au au au nouvel en en en mm-hmm. fin 2016 boobu on était avec le président mu wax ñu ko mais c' est quelque chose qui a baissé qui a augmenté il faut ñu xam lan moo lan moo xew. Hmm. c' est pas tout le monde qui est impacté de de l' état sont vides. te attends yi eh, Macky Sall amatul xaalis day wuti koppar. te bu ko teg ci ndoddu askan non c' est pas ça. Ah, xam nga il faut comprendre la chose. juste après l' élection rek ngeen ngeen yokk courant bi. qui sont dans le domaine de l' énergie. Mm-hmm. ñoom. dinañ ci gën a mun a tontu man je vais juste. Euh, ah donner quelques explications expliqué non je vais Sénégal na waaye li mu expliqué duggul ci bopp sénégalais yi non faut savoir que déjà y a pas tout le monde qui est impacté. Hmm. parce que ah. c'est c'est c'est cinquante quatre pour cent ceux qui consomment faiblement mm -hmm. ils n'auront aucune augmentation loolu la euh, bi tey wax mais c'est c'est c'est l'effet contraire non parce que gis nañ ni am na ku ne man euh, quinze mille laa daan fay bi damaa ñibbi ñëw sama kër ñu indi ma 65000 alors que sama consommation dara yokku ci faut pas que ñu ñu faut faut fasse la différence entre une fausse facture ak une vraie facture quand ah. tu as une facture boo xam ne warul def 15 mais lañ ko def mooy ci facture yi ñëw ni euh, consommateurs yi war ko fay ci janvier bi non hausse bi hausse bi am na mais ouais. laisse-moi t'expliquer ça ouais. laisse vous expliquer Sabine mm -hmm. parce que gis nga hausse bi c'est les fortes les fortes consommateurs mhm. de 6 à sachant qu'il y avait eu une baisse en 2017. Et cette augmentation-là, il faut savoir que le prix du baril du pétrole, mm -hmm. c'est une fluctuation, maanaam day yëg di wàcc. te ñun récemment la ñu nekk euh, on a trouvé des gisements de pétrole ici au large du Sénégal. Mhm. donc faut que nit yi ñu xam ni prix bi augmenté na certes loolu ñu ngi koy ñaawlu daal maanaam am na ñoo xam ne dina métti seen côté mais faut que ñu xam ni affaire boobu c'est juste pour un certain temps. en sachant que la production des premiers barils qu'on fera au Sénégal d'ici l'an 2021 maa ngi ñaan sénégalais ñu xaar fii un an rek xam ni une nouvelle baisse dina amaat te on va saluer encore l'action du président parce que mhm. su wàññi amee mhm. yow waxoo ci dara mhm. nga kontaan waxoo ci dara mais saa ñuy yokkee ngay kaas di kii loolu foog ñu ñu ñu ñu bañ di ko def tamit nit su defee lu baax nga rafetlu ko mais su fekkee peut-être am na leen loo xam ni on peut rien y faire mais mais mais moom mooy euh, bii pas li ngeen yenn sénégalais yi dañ ko àttanul c'est ça le problème non c'est que parce que courant soo ko yokkee Umar pratiquement yokku nga lépp indirectement. mais da ngay yokk courant rek indirectement yokk nga dund gi yëpp. mais faut parfois sax di nga créer ay ay ay ay usines yu tëj ay chômage chômage bi sax da nga koy yokk. parce que dina am usines yoo xam ne danañ wàññi seen employé pour mën a fay seen facture courant. Euh, c'est pas le président qui a décidé de l'augmentation mais c'est des il y a des facteurs qui ne dépendent pas du président. Mm. parce que encore une Ou fois. on fay courant yéen ngeen fay. courant non déedéet fay courant fay <laughs> moo tax yéen buñ ko yokkee buñ ko wàññi alors c'est le bas peuple qui en souffre déedée déedée bu ñu wax président du fay courant y a certains ah, a certains avantages taxaw président day fay courant non y' a certains avantages non Omar déglu ma président day fay courant. non mais bien sûr il a un domicile à Mermoz. DG day fay courant soo demee tey nii. Hmm. dafay dafay jot facture courant. day jot facture di fay facture palais peut-être da dul jot. Hmm. parce que palais c' le peuple qui l' a mis là ba hmm. mais domicile bu mu am Mermoz. son le le domicile qu'il a à Fatick mais dafay jot courant. te xam naa da koy fay ba majo majoré ko sax. Mhm. parce que léegi ñu ñëw ci euh, opération de désencombrement bu Dakar Sénégal zéro déchet temps bi bareegul euh, Sénégal zéro déchet bi tey nag président mu ngi koy commencé ci këram googu Mermoz. Mhm. nee na sax buggu faa gis benn euh, leaderu parti wala kenn ku nekk na nga yam sa sa sa gox. Mhm. waaw naka nga ko gisee Sénégal zéro déchet bi président Sall lancé. boobu encore je vais encore faire une répétition c'est une nécessité. parce que gis nga Sénégal. c'est li ñu li ñu fal li ñu fal président les cinquante huit pour cent des sénégalais yi ko fal. Mhm. en février deux mille dix neuf dañ ko fal sur la base d'un programme. Mhm. parce que liggéeyal ëllëg boobu. mu mhm. teg loolu moo tax mu am la suffrage des sénégalais ñu bëri peut-être y a le vote affectif parce que président daf la neex wala bëggoo président nga votel keneen mais président loolu la teg comme campagne am liggéeyal ëllëg boobu te ci liggéeyal ëllëg boobu dafa am un programme sectoriel bi ñuy wax Sénégal zéro déchet. Sénégal zéro déchet boobu noonu moom la en euh, moom la ñu encore commencé mettre en place pour pour pour pour raxas maanaam li ñuy naan Sénégal de tous les déchets pour qu'on ait un environnement sain. Mm-hmm. loolu fokk ñu xam ko parce que yaa a y a ce qu'on appelle le programme 535 les cinq initiatives majeures les trois programmes sectoriels ak euh, les cinq accès universels. loolu loolu la président teg en place te programme zéro déchet boobu c'est très important gis nañu Sénégal surtout Dakar ñu ngi koy rafetlu nag soxla nañ ko trop programme boobu te y a mhm. un suivi mhm. fokk ñu xam y aura un suivi mhm. c'est bien beau ñuy def je sais que président dina si def moyens yi war pour Sénégal set mais président soo demoon Mermoz nii fekk ci wetu non Mermoz dafa set waaw Mermoz set na amuñ problème. boobu démb de caterpillar yi fa <laughs> am na quartier yoo xam ni pratiquement soxla wuñ ko. yora waaw moom quartier am dafa set. sur le programme. Mhm. tous les quatorze régions. Mhm. yora c'est que Dakar la ñuy commencer nag. parce que Dakar foofu la masse population bi gën a gën a nekk. Mhm. mais toutes les quatorze régions dañuy am un programme boo xam ne yora des programmes intercommunaux. yoo xam ne foofu la ñuy dem pour. lu ngeen programme pour Kaolack parce que Kaolack soxla na ko. mais région bu mel ni Kaolack on va en venir on va mm-hmm. commencer par Dakar mais Kaolack Thiès euh, Diourbel région yi nga xam ne ils ont les fortes euh, populations mm-hmm. foofu la ñuy commencer te région yooyu yëpp on va on va faire des programmes zéro déchet avec l'intermédiaire des localités qui sont là-bas on va mettre en place des programmes yoo xam ni pour nettoyer la ville ba pare faire un suivi. Mm. parce que c' bien beau nga def set setal mu set ba pare après mun na ñëw saltewaat. voilà yow clean day bi mbaa soo jógee fii di dem. man gox ngay dem man je de la Padoa. Padoa xam naa gars ak may xaar foofu ñu ngi lay xaar <laughs> pour bañ a euh, perdre de temps xam naa clean day bi rafetlu nga ko ñëpp a ngi koy rafetlu mais bëggoon naa nga wax si euh, parce que euh, vraiment nu ñu occuper mbedd yi ce n'est pas normal salte bi ci mbedd mi ce n'est pas normal donc président bu lancé euh, mbir moom clean de ainsi de suite jiitu ci en tout cas dañ koy rafetlu euh, di yaakaar ni dina si def tous les moyens euh, pour arriver pour ñu mën a yegg ci loolu mais Boubacar dama lay laaj yow directement ci tontu bi nga xamante ni président tontu na ko ci troisième mandat bi nga xam ni coow li bari na ñëpp nee nañ daal président Macky Sall li muy togg nii bis bu ñoree. troisième mandat lay nekk euh, mais gis nañ ni ci 31 décembre bi encore tontu bi flou na du ma ne waaw du ma ne déet su ma nee waaw sama parti dootuñ liggéey su ma nee déet ainsi de suite naka nga gisee tontu Macky Sall est-ce que yow maanaam tey boo jàngatee li mu tontu da nga naan kii pare na sampaan dëndëm wala dafa pare pour dem. Euh, gis nga Ndeye Comba. Mhm. président de la république Macky Sall. bi mhm. nga xam ne moom lañu fal. Euh, au mois de février passé mhm. bokkul ak président de la république bi nga xam ne moom la ñu fal vingt cinq mars deux mille douze mhm. gis nga gis nga gor lu leen lu leen différence gis nga gor moom laa lay wax mhm. ma ne la gis nga gor waaw ci kàddoom lañ koy nawee tey le président de la république a un sérieux problème avec sa parole donc il doit réconcilier sa parole avec le peuple sénégalais parce que boo nee. du ma du ma du ma wàññi sama mandat euh, da damay wàññi sama mandat def ko cinq ans jële ko ci sept ans def ko cinq ans nga mooy ñu ñëwati ñu daan ne la deux mille vingt quatre mënuloo présenté wu nga taxaw ne du ma ne waaw du ma ne déet parce que su ma nee waaw. Mhm. sama waa parti du ñu liggéey. donc kooku wax wax nañu ñoom fan lañ féete. Mhm. mooy ni lépp lu lañ intéressé mooy mbirum nguur. mbirum am-am. Mhm. loolu kese lañ intéressé mais nag gis nga fii ah xaw ma nu ko wolof wolof wolof waxee. Mhm. xaw ma kenn du fi naanee. yow gis nga ni Macky Sall bis bu jéemee laajaat fii troisième mandat la Ablaye gisoon deux mille. yàlla xam na gis la ko lu ko raw. yàlla xam na ni. Mhm. boobaa dina daj. lu farine dul euh, di daj ci ci ci ci boulangerie. parce que ce qui est sûr et certain. gis nga lëpp peuple sénégalais dañoo dañoo mën a muñ sénégalais dafa mën a muñ. dafa dafa am benn kilifa bu may waxtaanal toujours mu ne ma sénégalais fan ngay xamee ni dafa mën a muñ boo duggee car mhm. mais effectivement boo toogee di xalaat sénégalais yi li ñu koy teg yëpp li ñu koy teg yëpp. Mhm. mu ne pat rek toog mais bu boobaa nag lay xam. ñan ñooy sénégalais yi. voilà jël na beneen décision ci urgence yi ci hôpitaux foofu la ñuy tëjee juste une minute euh, wax kii après ñu dem urgence bi Macky Sall wax léegi ku ñëwati urgence vraiment nañu traité les cas d' urgence def ci li ci wax naka gisee. décision ma ne balaa nga naan naam ne fa. Mhm. tey tant que tu n'es pas tey jii nii euh, euh, plateau technique yi buñ ko relevé et nit ñi mën a fay fajoo et tout ça mais médecin yi du ñoom la neex ñu naan la demal hôpital sangam wala demal hôpital sangam. Mhm. ndey ma nga may ma tuuti gis nga ci programme liggéeyal ëllëg boobu noonu muy wax. Mhm. balaa ngay liggéeyal ëllëg liggéeyal tey. Mhm. tey jii nii sénégalais dañoo sonn gis nga clean up boobu noonu muy wax. man rafetlu ma ko. duma ci participer te du ma ne kenn participer ci. ndax tax. xam nga tax farce we ma ne farce weesuwul. farce weesuwul li président Macky Sall di ñu defloo. voilà parce que tey euh, parce que parce que tey mënuloo mhm. euh, imposer ma ma changer sama permis tout simplement parce que bëgg nga lekk sama xaalis mu nga changer loo ma sama plaque d'immatriculation wu oto uniquement parce que da nga bëgg a lekk sama xaalis nga changer loo ma leneen ak leneen ak leneen tey bàyyiwoo ma ma xëy dem liggéey ji may dem naan damay damay damay damay bale ji ma ne balaa nga naan naam ne fa. ay balaa may juste une minute Omar dañuy tàggatoo une minute euh, euh, troisième mandat bi Macky li mu wax noo ko gisee quelques secondes. ñu tàggatoo waxtu euh, bi côté boobu man damay wax gis nga nit nit ku mun a déglu. Mhm. moom la ñuy waxal le président il s'est prononcé là mais su fekkee mënoo dégg. Mhm. wala yow ci te fixes la base di xalaat deux mille vingt quatre boo xam ne yeggaguñ fa. Mhm. loolu duñ ci dugg. Mhm. man je veux pas rentrer dans débat futur bi nga xam ni. wala dañu leen a ragal. déedéet du ah, affaire ku wax ku wax Macky Sall dàq la. non du hmm. Macky Sall du def loolu. waaw ñun on une disipline de parti bëggul ngeen wax ci maanaam troisième mandat parti. da leen koo tere. du affaire daf ñu ko tere. on a une discipline de parti. mais ku ne mënul def troisième bañ. Hmm. mais boo nee mën na def troisième mandat doo am problème. déedéet du loolu. ayca foofu la ñuy tàggoog euh, auditeurs yi Omar. ñu bàyyi la nga euh, tàggoog auditeurs yi waaw euh, bëggoon naa tàggoog auditeurs yi. mais balaa boobu bëggoon naa souligner rek il faut laisser. euh, les choses se faire. Parce mmh. qu'on est sur le temps de l'action. Mmh. Le président, il veut il veut il veut travailler actuellement liggéeyal ëllëg boobu tey la ko commencé bugg a liggéey mais buggul ñuy ñuy ñuy liggéey boo xam ni peut-être jotagul 2024 dafa jotagul. ayca mi ngi noonu leen di remercier bu baax a baax Omar Dieng euh, ñu koy daal di remercier bu baax a baax euh, moom nag mu dal di euh, nekk responsable politique APR vice coordonnateur national bu COGECAR di convergence des jeunes cadres républicains bu APR ak kile di Boubacar Samb nekk président bu mouvement alternatif alternative leeral euh, nekk membre bu UNP bokk jëmu ñu leen di remercier bu baax a baax euh, ci waxtaan bi nga xamante ni amal ngeen ko fii di remercier suñu auditeurs yi ànd ak ñun comme chaque samedi 10 euh, heures jàpp 11 heures di remercier Léon Paul Mendy ci réalisation bi Mamadou Diaw Diallo ci wàllum technique bi Ndeye Kumba Mouro di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission beneen thème ak yeneen invité jaa jëf